Euh, mu nekk itam euh, Aliou Mamadou ja nekk nekk ji jiital coalition euh, bu PUR ñu ngi leen nuyu monsieur Dia. oui ñu ngi leen di fay na ngeen def. merci beaucoup ci ci xaar bi yéen lan mooy seen taxawaay nu ngeen jàngatee décision bi nga xamante ni président de la république jël na ko tey. waaw dama leen di nuyu d' abord di leen wax ni en tout cas nous nous avons en tout cas personnellement avec ce qui se passe j'ai un sentiment de honte. Euh, un sentiment de désespoir, un sentiment euh, qui est euh, vraiment que simplement que le Sénégal ne mérite pas cela. On ne doit pas, le président de la République du Sénégal ne doit pas être le premier à ignorer la Constitution et à prendre des décisions qui font pas avancer le pays dans le bon sens. Aujourd'hui, ce qui se passe, euh, c'est carrément quelque chose à, à, à déplorer. Et euh, pour nous, euh, c'est vraiment, la honte, si je peux l'appeler comme ça, parce que, comme je l'ai dit, notre pays ne mérite pas cela. Mhm. Maintenant li fi des mooy euh, li fi am ci réew mi mooy état de droit bi ñuy wax na ñun un état de droit tey le président de la République démontré na euh, de manière très claire que état de droit amul fii li fi am mooy. respecté wuñu les la la souveraineté du peuple sénégalais faale wuñu sénégalais yi ci li nga xam ne loolu la ñu bëgg ambition bi du ambition pour le Sénégal mais c'est des ambitions personnelles pour des calculs politico-politiciens loolu la ñu gis tey parce que sénégalais yi pare nañu woon pour dem le vingt cinq février voter ki ñuy élire ñu élire la réew mi dellu ci jàmm kooku réconcilier sénégalais yi tegaat réew mi fi nga xam ne foofu la ñu bëgg mu tegu ñu liggéey ko parce que ni ñeneen ñi ñu ngi liggéey seeni réew ñun amuñu lu ñuy def lu dul toog fii di politique politicienne président de la république waroon nekk koo xam ne mooy gën a taxaw pour suñu constitution ñu respecté ko suñu loi et règlement ñu respecté ko mais li fi am tey gàcce la. léegi yéen lan mooy seen taxawaay lu ngeen lu ngeen fas yéene def après en tout cas dogal bi nga xamante ni njiitu réew mi jël na ko. lépp loo xam ne war nañ ko def rek dinañ ko def ñu ngi waxtaan war nañu gisee ci kanam. ay leader politique pour xam ban stratégie la ñuy teg pour carré li nga xam ne fa la ñu jëm xam nga li ci doy waar mooy abroger décret bi nga xam ne moo convoqué le collège électoral nga abrogé ko te xamuñu fi ñu jëm fan la aujourd'hui kenn mënu wax élection kañ lay amati Sénégal parce que li président de la République di évoqué pour man c'est trop léger pour tenir le pays en otage à ce point tey kenn xamul kañ la organiser élection saa bu ko neexee mu jëlaat décret ne bon jëlaat naa décret bi et li mu defaat mën na ko defaat ab abrogé waat beneen décret encore bu ko jëlee sax donc li fi nekk mooy dañ ma jàpp ni Sénégal il faut qu'on soit sérieux Sénégal il faut qu'on respecte le peuple les dirigeants doivent avoir du respect au peuple sénégalais parce que président de la République wax naa ko Sénégal amul lu mu ko defalul amul lu mu ko joxalul moom dafa war a delloo njukkal Sénégal dafa war a siggil Sénégal comme ni ko Sénégal siggilee li ko Sénégal jox mënu ko ko joxaat mënu ko joxaat waa Sénégal donc taxawaayam li ñu doon xaar ci moom du lii li ñu doon xaar ci moom mooy siggil Sénégal organiser élection bu libre ak trans bu transparent ki gagné mu delloo ko jox ko euh, jox ko lengay réew mi mu taxaw liggéeyal Sénégal moom ñu yeneen politique mooy yeneen candidat wala sa sa coalition candidat yeneen candidat ñu ngi wax ak ñëpp ñu ngi wax ak ñëpp te ci kanam incha allah dinañu daje ñu waxtaan te dinañu wax sénégalais yi lan mooy sunu position par rapport à tout ça ci kanam tuuti incha allah di ngeen ñu dégg bu soobee yàlla. merci beaucoup merci beaucoup Aliou Mamadou Dia nekk candidat.